su ma bay añu bàyyi kon dafa liggéeyal yonentu sallallahu alayhi wa sallama ba ne ba ne ba ne ba ne matlabi ridal munhamil naa man li may ut yëpp mooy ngir mandel yonentu bi yéena ma nentu rida wa hawat kat fii jami alladi yoon mbooleem lu ma doon ut bu ma amee ngir mandel yonentu am naa wa yasxaru fi ayni tilaabi wa taarifi bi dal ki ridal munhamil naa xayaati wa inni te loo ma mën a wan tuuti na ci sumay bët ngir am ngir mandeel yonent yàlla Muhammad billaahi baay am na ngir mandeel yonent billaahi baay am na ngir mandeel yonent ndax baayam ci ko yar gërëm na ko balaa dem liggéey bi mu ko mujjee liggéey loo daf ko ne Ibrahima sama tool bi nga xam ne mag ñee ko doon liggéey di fa am ay ñetti fan dama bëgg tay biñ jullee fajar nii dama nga liggéeyi ko ëllëg ci fajar balaa fajar ci ëllëg na ko jeexal ñëw rendre ma compte bi mu ko koy wax ci ëtt bi ëtt bàyyam la ko ko waxee maam Asou Diankha jooy ma ko laajee ne ko lan la mu ne ko dama ragal sama doom bi Ibrahima loru ñaari doom yu góor rek laa wax Ibrahima ak Mahmoud maa kaala gi ma amoon ci roq bi moom la takkaayoo dugg ci àll bi bàyyi mu ne ma liggéeyal sama bàyyi ndaw yi déglu leen liggéey d'abord way julli dañ déglu bu baax bàyyi ne ma liggéeyal sama bàyyi fajar ba gannaaw timis lekkuma naanu kan ci ñun moo ko nangu ngeen foog ne Cheikh Ibrahima ab patron la boo xam ne dafa xëy ne puyu dafa liggéey bay bëgg a dee moom bàyyi nekkul ne dafa xëy ne puyu dégg nga mu ne gan fajar ba gannaaw timis may liggéey soo bàyyi lekk ma naan balaa timis maam alaaji ebal ay mag ne dem leen xoolal ma Ibrahima waxoon naa ko bu la kenn dimbale mag ñi biñ ñëwee dañoo wax ci géej gi diir lu bàyyi bañ ko séenee ndekete bàyyi góob na dugub ci takk na jox yi ba mi ngi jàkk Saalum am na ñuy wax jàkk am ñuy wax ngat dégg nga ma ngay jàkk mag ñi dañoo daw ñëw ci maam alaaji ne ko sa doom ji du nit du nit ñun daan sonn ay fan moom jeexal na ko si benn bëccëg bàyyi jàkk affaire bi yëpp fajar dañoo julli fajar génn si jàkka ji mu nuyu bàyyam na ko bàyyi liggéey ba pare bàyyam téye ci loxo bi ba si diggante bi mu xoo yëpp ak rakam yëpp ak yaayam def as jàng xam nga Ibrahima mii lu tax ma di ko liggéey loolu mu ne ko ah mu ne ko damaa bëgg su ma demee àdduna yëpp su ko di ko liggéeyee koo yàqatu ñëw xadama ni la xaraaru wala abibu xadama ni kadal muluku seydu wa xadama nisaau wa rijaalu wal asiyaaxu wal axyaar góor yeeg jigéen ñeeg buur yeeg baadole yeeg dégg nga ñëpp ñi ngi sukk di ma liggéeyee wattu tool bàyyi ko dàqoon wattu tool wattu tool bàyyi ko dàqoon gis naa ci benn téere ne dégg nga dañ daan wax ne bu demee wattu tool yi tool yi benn golo du fa ñëw waaye bu wattu ji dañuy bëri golo gars yi dañuy dàq ba sonn benn bés gars yi wax ko maam alaaji maam alaaji ne dana ko seet dégg nga bii maa ngi ko gis téere bi ñu wax Nuzhatul Ashiqiin yaa ngi dégg bi mu demee taxaw benn golo gu mag di wax ak moom maam alaaji bi mu jubee tool ya golo gi seen ko daw bi ko legi gi daw ma wala ñew nak Ibrahima dima seen nga taxaw lan la mu ko goro la fi mu ne ko àll xew mu ne ko golay ci si bi daal ñoo yónni won seen magam golo mi ne ñoo sant ma gërëm ma ndax suma ay wat ñom fañ nga dañ fay am lu lek ba duñ tala yaq bëri sax way suma ma ayee daal xif mo tax ñu yaq tool jàngal kon ko lu lay jàngal moy la mam ka waxon ay kuy jinné rombu nañ ma fi mané mooy si sësiir Ibra kon mbokk yi xol yi ci bàyyi xol yi ci bàyyi